ensuite sont pas sur les bancs. Je me dis, mais lui, est-ce que seulement, est-ce qu'il s'est mesuré, est-ce qu'il s'est auto-évalué C'est grave, hein mm grave, dangereux. on permet à n'importe qui d'aller dans le terrain. Comment voulez-vous que des populations, aujourd'hui, les populations il y a 15 ans, 20 ans, ce ne sont plus ces populations-là aujourd'hui. Parce que 75 ou 80 des militants, c'est des populations jeunes qui beaucoup ont cursus universitaire assez élevé, mais qui chôment, qui n'ont pas de travail. Donc ils savent réfléchir, ils savent disséquer, ils savent comprendre. Donc c'est des consciences qui sont là, qu'on doit pa utiliser à bon escient. C'est pas euh, Je, ne sous-estime pas, mais je dis par ailleurs, le Sénégal, on a combien d'années d'indépendance aujourd'hui 63 ans. Donc on voit des énergumènes, je le dis très sincèrement, mmh. comme ça. Nos élèves ne, se comporteraient pas comme ça, avec des propos malsains, malveillants l'endroit des, des C'est extrêmement grave. Hmm. Mbo ambe ambe tunaofula senaya ñuñuñu ganida ante mool kiiwul quoi ambe ole e déglu leen nag ah, ñu ngi nuyu gan yi ñu ngi di sant di leen gërëm di leen yàlla jàmm parce que euh, ñu waxee si suba si dañoo kontaan parce que yéen ñenn suñu rakk la suñu doom ana lu na suñu jarbaat la suñu. yow suñu lépp naa la ko yaa ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg am na say noo ko waaw man maa jël waaw ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg abba balaa ngay eh, jël bi moo gën xam nga. Eh, eh, man maay taawu kër bi mais man dama am jiit fii koo xam ne mooy kii ñuy wax ak Ousseynou Balla moo denc sama rakk mais man lu may def ci kër yi moom laa ma tere Cees la nekk. yàgg nañu wax say wax ci suba ëppoon dañ nii ñun jeune waa Kalbara ASC Kalbara rawatina ASC maa jël kàddu seen maa jël parole seen si seen wàllu ñoom ñëpp balaa Bangory mii suñu mag la suñu lépp ba mu ñu ko waxee wallahi matoon nañ fi presque ay trente yi jëm kaw waaye taw bi ak heure añ moo tax gars yi tasaaroo waaye bëggoon nañ la teeru xamal ne ñëw nga si say. may na la pouvoir bi may na la intelligence bi may na la courage bi may la doole bi. donc boo jëlee élan boobu nous nous n'avons qu'à vous féliciter nous encourager à redoubler d'efforts et à ne jamais reculer parce que votre papa ne connaît pas le il n'a jamais reculé jusqu'à sa il perce il perce rek il perce xam ni il a percé boo gisee Tamba bu ñu ne dañu lay ne Alioune Badara Niang lu mu defar ci biir Tamba fi en tant qu'ingénieur bare na à Thiès aussi la même chose donc da xam ne kooku la sa papa di doon moom c'est quelqu'un qui perçoit qui perce courage boobu nga am intelligence boobu comme ni ma ko waxee léegi yàlla may na la ko te yàlla may na la tamit xam-xam bi ñun ñu ngi lay encouragé ñun waa Tamba ñun famille famille Alioune Badara Niang yu fi nekk famille monsieur le maire yu fi nekk ñun ñëpp ñu ngi lay encouragé waa Kalboora comme xale yi ni ñu ko waxee nii xale yi dañuy taxaw te à un responsable politique wax ko wax ko ni lu soxla nit ñi soxla nañu mais nawetaan bu jotee su fekkee waa Kalboora xale yi <coughs> a commencé ci man sama bopp je suis jeune je suis avec les jeunes je suis jeune moi je suis pas ci seen ak seen i sant di ñaan suñu borom mu defal kër gi jàmm di ñaan suñu borom mu defal Tamba jàmm di ñaan suñu borom mu defal Sénégal jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ndax jàmm jooju moo waral tey seen doom ñëw fi tey ngeen di jël seede di ko jagleel maire bi nga xam ne moo fi nekk kon loolu lu rafet ndax jàmm ak lu rafet su amuloon seen diggante rek. kon témoignage boobu doole ko kon nag monsieur le maire ñu koy ñaanal yàlla gën ko dëgëral te incha allah dinañu lijjanti ak yéen naka la ñuy xamante ak moom. ba parrainage yi buñ koy ut ñu ne jiital wala Tamba bu njëkk am parrainage ndax loolu buñ ko amulee rek kon dafay doon defee man déwén bu ñaar kon nag waa Tamba sas de ci mu leen ala me ne ci banaana la ñuy la ñuy dund moom culture culture banaana te boya ay goosa banaana ani di ala una nee na jigéen ñi dañuy dem euh, roose banaana ba mi di ñëw sooba dëbb su ko yaxa su ko yaxa ko ñaan ci la xale yi di mën a am lu ñu lekk eh, dafay génn ci saara nga ko wàccee ji moo ñaan nee na jël na dëkk bi yëpp defan def na ko si sa teg na ko si sa loxo yow eh, sabu suga bi amin nee na sabu seen jeunesse bi nga xamante ni ñu ngi topp si yow si yàlla jëm si woote yow te ne ngeen sooy taam nee na soobu yàlla bu woote jotee yow bu mu la rusee eh, bu mu la rusee noonu loolu rek la amul mais de wóor ni noonu cadee de yeewu de Sénégal lum la wax mbeɗe wonde tampere machine ji machine lum la wax jowi mo hande sénégal no fandiri goto yaata hara machine muule ngala ndena sénégal moode walla ko courant ngala kono ay ɓeɗo fof mbiyataɓe fof ɓe roose e banana ko so ɓeani ko mayɓe unati ɓe heeɓa koɓe ñaama ñiidi rooseji ɗum ne debbo ɗuma toggal kala e kalifu allah kalifu nen mule denko dëkk bi mule mule koye denkatan e eh, si o allah waɗi o paasi nen bo yallah defe ngo jall so waɗanimi hay so waɗani fof o waɗi goɗɗum même bode deful lépp nga def lenn nga def lenn. Eh, xaaral ma ne retenir. nee na loolu dinañ si am mbégte ak kontaan. soo wadaani. nee na boo deful aussi. élection gox ak ak yaray. élection beneen aussi dana ñëw. yaray tun ne rajo may nay man la wadaani. boobu ñu bàyyi la ñun la yow mosul. on jarama haalaka laaɓi ko joguinomi tan ko mbeɗa ɓeyda mbeɗa wiya mo oɗo ñam Oh, hoɗɗuɗi golle mum kadi neɗɗo aussi saɗa nanngana ɗum ya faam aussi holko woni liggey mum comme spécialiste euh, gouvernance réformation euh, mbaɗowo réforme ja omo omo saɗantuma samin jigéen ñi dañu hande amuñu fi ñaari bopp képp koo xamante ne ànd nag yow bu ragal bu kii macha allah yàlla baax na yàlla nañu may dam li nga soxla yàlla na la may ba keroog bi nga am finition bi ñu taxaw si ñu waxaat ko tam encore tey mooy commencement yàlla na continuer ba fay alasan di nga soxla ñu naan mais nga xam ne nag sama polo bi toj na de ci yoon bi loolu moom dégg nga ko du man maa ko wax yàlla baax na Congo ci doo réew mi rewɓe gomo yi hande ene jami mi salmini hoɓɓe arɓe ɓen mi weltani keɓe mi haalata ɗow hande kadi ko haalaka sabuna haala waɗi jargaw yewti président sukaɓe jeunesse yewti mi salminiɓe fof mi weltanike arɓe ɓen moƴƴa eɗen jernaɓe konngol maɓɓe ngol weli men ಐಸಿ ಗೊತ್ತವಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಹುಟ್ಟೆ ದಾರು ಮೋ ಬೋರ್ನಿಯೋ ವೆಲ್ತಿಗೆ ಬೋ ಕಂ ಬಂ ಬಂ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಕಿ ಮೇ ವೆಲ್ತಿಗೆ ಸಕ್ ಕೊಲಂ ಹೇಗೋ ಟೊಕಾಜಿ jeunesse, le mouvement des femmes et Bada Mekho Arayan Samedi. ko atinon hannde koɓe gandi ɗo ko produit amen ene waɗa ɗum présenté ma ko sabi mi wiyon en mbi sénégal yewtata ɗo heewi façon jeleji fof façon tandireji fof enen dettamen saka ɗe gadi e ɗoɓe par ce que ɗen woni gaɓe wawa hay ha hannde ɓen soɗoɗo naaro ñaami ha hannde e soɗoen maaro so ñaami ka mbaɗa même chose mbaɗana même chose mbaɗana jogui jogui gana kam waɗaka e soɗoɗe hay awdi kam ko o yaa

saya Jamaï, Jamaï, Bamana Jamaïca, très bien, très bien, etc., etc., etc. Japan est Dieu petit, et Dieu petit pays, tout le monde est là, non, aucun pouvoir n'a pas faire une constitution. Ou non, oui, à un certain moment, on va toujours dire, poser des questions. Mais pourquoi il va la ligne, il ne dit pas, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais si on n'a pas de temps, tant que président Alassane Niang on nous dit que damay doon moi ça def na ak moo ci des bismillah nee na nag mu ngi lay dalal gis nga nu mu téye sa loxo ni ngeen téyante loxo nii yo àll na yàlla na ko yàlla def motali yéene bi a wona ba nga nekk su àll hebi soobee yàlla